ki nga xam ne moo magoon ci sëti Serigne Bara muy Serigne Khadimoul Bara 1937 la jóge la la fi gane jamono te 37 ak léegi boo ko doon xool matagul juróom juróom-ñett fukki at ak juróom kon loolu itam jeneen wax la ju teggeeku lii mooy li nga xam ne mooy carte d'identité amul juróom-ñett fukki at ak juróom jegewu ko am kon ñu bëgg ñu xam ne ñun ñii ay doomu aadama lañ ki fi jóge kilifa la goo xamante ne sii kenn ëpp ko ci ñun. kenn gënu koo rëy ci ñun kon nag du nangu mukk ñu jël sunu kilifa di teg ay tegendaay yoo xamante ni si tegewul fenn ay tuuma ak kaddu yoo xamante ni si du dëgg du yoon di ko teg ci kawam loolu nag naqari na mbooleem jabotuk Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gépp la commencé ca kër Serigne Modou Bara ba ci kër Serigne Khadim Awa Ba kata ñëpp di def leen a naqari mbooleem jaboot gi yëpp ñu def seen i manégance demaat dikk ne dafa amee covid 19 ba pare ñoom ñoo koy denc def ca lañ ciy def lépp loolu nag ñu ngi ciy ki nga xamante ni sii mooy ministre de la santé ak mboolem ñi nga xamante ni ñoom ñoo aji ci ci ci ci ci ci corps médical bi yépp ak mboolem ñi nga xamante ni si tey ji ñoom ñoo njëkk a génn ne ci Serigne Abdoul Khadim dafa am Covid 19 liñ leen di laaj mooy 72 heures yi nga xam ne Serigne Abdoul Khadim defoon na ko fa lan moo tax ci biir 72 heures yi waxuñ ñu ne dafa amee Covid 19 de un deuxièmement mooy bi mu nekkee ci biir hôpital bi dañ ko boolewoon saal ak ñeneen lan moo tax defaruñ ko prélèvement xam ne dafa am Covid 19 ñu ber ko yóbbu ko fa nga xam ne fa la ñuy yóbbu Covid tax parce que ñoom ñoo ne feebar bi dafa gaaw a wàlle feebar bi jàngoro ji dafa bon comme ñoom ñoo ko wax ko am ku ne say jegeñaale ñoom ñëpp dañ leen a war a seet loolu jàll ñu dugalaat ko ci salle boo xam ñu ñu yóbbu ko clim ñu yóbbu ko ci euh, nu mu tuddati cabine lañ ko mujj yóbbu cabine lañ ko mujj yóbbu te yaakaar naa ñoom am na yoo xam ne ñoom ñoo ko programme ne ñoom ñooy faj ñi nga xam ne ñoo amee jàngoro jooju Covid 19 kon pour quelle région yooyu yëpp ba mu ca dajee ba pare ñoom ñu xam ko lu tax yóbbuñ ko ci saal yooyu bu fekkente ne dañ ne teeruñu koo defal prélèvement lan moo tax ba mu ñëwee teeruñu ko defal prélèvement parce que yaakaar naa de farata la ci képp koo xamante ni si dugg na hôpital ci jamono jooju mu toll fi mu toll sax ñu ne dafa amee diabète kon le plus rapidement la ñu waroon a njëkk a def nag mooy xool prélèvement ba xam moom amee na Covid 19 waa waaw wala déet su fekkente ne dañ ne ja bu diggante ma te diggante bi bu fekkee ci talaata ci mëntu génn xanaa kon tôt ou tard àllarba ji waroon naa mën a génn ah kon mënta def 72 heures ba mu faatu ba pare ñu bëgg ñoo wax ne Covid 19 moom moo ko fi jëlee lool nag ñun ñoo moom suñu gëm man saa afal yoomin wa man saa afal yakfur gëmuñu leen weddi leen ba mu seet wicc te suñuy preuve mi ngi nii nee naa la lii bulletin la boo xamante ni si ci ay bulletin la bokk lii ay ordonnance am la yoo xam si ñoom ñoo ko bind lii ab carte d'identité am la boo xamante ni ñoom li ñu wax ne moom la am ci at koy dindi kon nag nañu wax réew mi dëgg jàngoro ji bu ñu bëggee nit ñi gëm ko ñoom li ñuy wax ak lay am nay méngoo te doon dëgg ñuy jot lay kàddu rek ci sos ko ci sëñ Abdou Karim comme li ñuy wax ne sëñ Abdul Xadim baara moom mi nga xam ne moom moo fi jóge démb ca tawat daaneeloon ko tawat ji nag yàgg na lool mën na noo wax ne ñun ñi di ci kër gi ci ay tuut tànk biñ ko xamee ba tey ci tawat lañ ko xamee kon xam nga ne tawat jooju yàgg na biñ ko xoolee daan ne covid 19 moo ko yóbbu xam naa nag wax jooju lépp ak leer jooju lépp li tax ñu koy wax mooy loolu rek moo tax ñuy wax ne moo tax ñuy wax nga xam ne lool moo ñu naqari mooy liñ ko tuumaal ne moo ko yóbbu muy baatu Covid 19 boobu ñu indi ci ay leeral tuuti rek ne moom dafa tawatoon tawa ji tamit yàgg na lool ñuy xamal na daal tuuma jooju nga xam ne teg nañ ko ci kawam naqari na mboolem njabootu Cheikh Mamadou Lamine Bara gi yëpp rawatina njabootu Sëñ Tuubaa rawatina nag ñi nga xam ne ñoom la njabootu ñu. nekk fii ci kër Serigne Abdou Lahad rek ñu ñi nga xam ne mooy suñu waaju mett nañu lool ñu nga xam ne nag tuuma jooju wérul sëñ bi tawata ko yóbbu waaye du tawati Covid 19 yóbbuwu ko. di wax ne e, tawat ji ñu wax ne moo daaneel e, Serigne Abdou Khadim moo dal Serigne Abdou Khadim di wax ne e, lenn amu di ñaan rek sunu mbokk yi buñ dee jàllale te lenn. Eh, ñu koy saytu di ko xool bu baax a baax a baax a baax ndax am na yu bari yoo xam ne ñu ngi koy jàllal yoo xam ne wérut waaw tawat nag eh, ku nekk ku nekk lay jàpp te ñun dañoo nangu ndogal bu baax a baax tawat ku nekk lay jàpp waaye tawat yi ñu wax ne moo jàpp suñu Abdou Khadim ba jële ko fi loolu wérut eh, lii ñu bind nii bu ma soñoon ñu dindi ko mu set wicc ndax lenn lu say dëgg amut lenn lu say dëgg amut ñun ay njabootam dañ ay doomam lañ ndax bu ma ne ay doomam lañ euh, euh, sunu waajur euh, mag la si moom ñoom moog sunu waajur bokk benn baay te lañ koy waxal lenn amu sax bu bu leen jaay seen ngor ngir lan alalu àddina waaw nañ bàyyi di jaay sunu ngor ngir alalu àddina àddina jii day jeex waaw nit ki lu mu bari bari bëri alal bu faatoo da fi bàyyi amul lenn lu mu yóbbaale lu juróom-ñaari mètre percal moo koy topp. waaw te fonkaat suñu kilifa diine yii bu baax a baax a baax a baax joxaa leen cër bu mat sëkk waaw ndax ñoom la fi suñu borom teg ñoom ñii suñu kilifa diine yii ñoom la fi suñu borom teg kon nañ leen ko nangul bu baax a baax waaye jàpp ay ay nit ñoo xam si ay nasaraan yu bon nañu tekku dara jàpp leen favoriser leen ba ba ba suñu kilifa diina yii nañ ko bàyyi.